asalaamaaleykum euh, mbokk waa internet bi ñuy suivre ci 221 people ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen di jaajëfu comme niñ ko faral di def ak ñëpp tey dañoo dellusiwaat fii seet si benn sëriñ bu mag di suñu xarit di suñu wëllëre ñu koy tuddee sëriñ maam Cheikh Lo sëriñ maam Cheikh Lo ñu koy dàkkantale borom kraw gi sëriñ maam Cheikh Lo bokk na ci sëriñ si nga xam ne yàlla may na leen lépp loo xam ne bokk na ci wàllum paj ak wàllum ñaan ak lépp lu dëxañoo ci wàllum asrar sëriñ maam Cheikh borom kraw gi ñu ngi lay siyaar di lay dalal ci 221 people asalaamaaleykum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 jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ euh, maam Cheikh Lo borom karaw gi ñu ngi lay fay di lay dalal ci deux cent vingt et un people comme niñ ko faral di def ak ñëpp euh, ginnaaw lool dañuy xel di laaj ngay addu pour nga tontu suñuy question nga jëriñ ñi nga xam ne ñooy askan wi nga xam ne soxla nañ sama première question damay laajte maanaam ñi nga xam ne dañuy ñaanlu te gisuñ ci dara dara dara dara te dañ leen a facturé laaj nga laaj bu ma neex laaj nga laaj bu am solo laaj nga laaj boo xam ne sawar naa ci lool pour tontu ci loolu man ak keneen ak keneen a ci yam nit bu ñëwee ci yow yaakaar la doy loo la ñëw la na la damaa bëgg ay ñaan nga ne ko boo ma joxee temps ma defal la ay ñaan yu wér kon na góor góorgóorlu ba sàmmoonte ak loola donte na loolu mënoo ko jar na nga santaane ko sax wala nga nga nga nga nga delloo ko xaalisam waaye nit sëñ bi doy loola wala ñu boole la ak moom mu am yaakaar dajale xaalisam xamoo nu mu ko lijjantee xamoo fu mu ko jëlee lijjanti ba jox la nga nga lekk ko ba mu ba mu jeex tàkk te la nga ko doon wax gisoo ci dara loolu nañ koy bàyyi xel ñun sëriñ ci léegi nag euh, foo dem foo dem am na sànkar peña goro boo boo dem rek am na sànkar léegi yëf yi dafa yàqu waaye ba léegi ñaankat yaa ngi fi waaw am na ñoo xam ne seenu cër la am na ñoo xam ne euh, ci seeni maam la woon ba léegi waaye nag ñi nga xam ne dañ dañ cee wàll si nga xam ne ñoom mm, danoo jekk-jekk rek ne dañuy ñaan ñooñu ñoo ñoo yàq nga xam ne jànguñu alxuraan sax boo demee séerum seen fer iji sax leerut fexe nañ ba gëstu rek xam ñaari araf ñetti araf ñëw na dañuy ñaan ñooñu nag ñoo yàqal ñi nga xam ne nag seen i seen baay ci lañ nekkoon kon nañ xam ne ñaan am na xam-xam am na yaa ngi dégg fexeel ba xam ki ngay ñaan loo fexeel ba dem ci koo xam ne leer na la la kii ku xam dara la waaw nit ku xamul dara yomb naa xam waaye sëñ bi euh, nañ nañ nañ ràññee di xool bu baax a baax lu wér te daal man daal li ma xam mooy ñaan am na xam-xam am na waaye nag yow yaay seet fi ngay dem ak xool ci ki ngay dem. Mhm. waaw coow li bari na wax ji bari na. Mhm. Euh, wax nga ko ñaan am na. to maanaam ni ngeen koy defee ñu bari am nañ ciy gis seen bopp mais damay seet bi maanaam na ci sëriñ si. dañuy facturer xaalis bu bëri. te li ñuy ñaan seen borom duñ ci gis dara. loolu fan lañ ko wéer. loolu teguñu ko fenn ndax facture boobu moo dul yoon mag ñi bu njëkk. bu ñu daan ñaanal duñu la laaj dara loo leen jox ñoom dañ koy doyloo moo tax day barkeel ci ñoom day bari lool ndax barke gi barke gi muy barkeel mooy tax léegi nag léegi nit ñi daanaka affaire koom-koom moo leen ci dugal mooy li ma wax léegi ci ñaan ñu bari maanaam koom koom koom mi moo leen ci dugal. business la daal bis dañ ci waaw business. business la moo moo leen ci dugal waaye ñaan kenn xamee wu ci di di laaj xaalis bu bari loolu ci jamono yi rek la xew waaye lu lu lu lu mën a xew. lu mën a xew rek mooy ki lay laaj xaalis bu bari beeg bu néew bi li ci mën a am de am na ñoo xam ne loolu du seen problème laaj leen xaalis bu bari du seen problème de seen problème lan la mooy li nga leen wax na nañ ko gis kon kon loolu amul solo sax kon xaalis bu bari beeg bu néew bi amul solo en tout cas li am solo rek mooy comme jaaxal la defal kon waaye nag yow na nga engagé wu ba kii li nga koy defal na ko gis parce que danga nga koo jaay da ko jaay kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax sëriñ si ñu ñu ñu bàyyi xel loolu. engage jël engagement ci seen jëmm yi mhm. maam kenn ku boo waxee moom la nga wax ca moom nga def ko sa kémtu lay kattan waaw bàyyi ko xel baax jërëjëf jërëjëf euh, maam Cheikh euh, Lo borom karaw bi dañu dugg ci beneen ponk mu bokk ci wàllum seet du mhm. mu mënee seet nag ñu bëri ci jaam yàlla yi ñu ngi koy laaj de ndax daal loo jot a jëflante ñoom ñu gis ci seen bopp ñu del siwaat ci wàllum seet maam Cheikh waaw waaw seet moom euh, ni ma koy faral di waxee léegi sànq nii rek am na loo ma junj ci Modou ak Ama Baldé ma ne la taxama xool ko <coughs> ma xool ko fat fat waaw kon maanaam dama laa bëgg a xamal ne maam seet moom suñu borom may na ma ci loo xam ne euh, loolu mënuma ko expliquer nit parce que man daa am lu may informé damaa yor ay ay jinne ñoo xam ne ñoom ñoo may ma neexee du ma xool ci ndax xam ci bopp lay nekk waaw dégguma la daa am jinne yoo xam ne ñoo la informé di lay wax waaw di ma wax carrément dama am ay jinne yoo xam ñoo may informé ñoo may wax waaw bu ma dee seetal nit ñoo naan ma nangam ak nangam moo ne ci moom na génne nangam ak nangam lépp lu ma la wax rek ñoom ñoo ma ko wax. te lépp luñ la wax rek soo ko jëfee niñ ko waxee rek gis nga ko. gis ko waaw na ma ko waxee ndax sarax bu mu bu la génne ko danaa la jox ko diw wala ko góor wala ko jigéen ak nangam ak nangam lu ci ne rek dalay wax na nga koy defee loolu nag boo ko defut yow kon yow ci yow la waaye man niñ ma ko waxee waxee naa la ko noonu kon nag yow boo ko defut ci yow la maam boo defee baaxut ci yow la waaw waaye li wér mooy man damay seet ci ramli damay seet ci euh, maanaam alquran damay seet ci tur yàlla yi ci xaside yi xaside yi sax man ci laa dàq seet xaside yi sëriñ Tuubaa yi euh, maam dama ci seet bu baax a baax a baax baax nga xam ne man maanaam dama ca yor ay fànn yu bare bari ba bëgg ku bëgg pétaaw sax ndax nit ñi kenn ku ne ak la nga bëgg am na ñoo xam ne pétaaw moo leen gënal waaye ñun ci lépp la ñuy seet rek. ci lépp la lépp ngay seet. maam Cheikh nga ci gën ci ban nga ci gën taxaw dëgg nga ëpp loo xam ci nga gën a sentir sa bopp. ci baatin bi waaw yëg yëg léeg-léeg ma ma ma ma léeg-léeg ma am lu ma dikkal du ma du ma yor téere loolu baatin la. xanaa yooyu jinne yi la. waaw waaw naa nekk. di lay wax waaw loolu léegi man léeg-léeg moom baatin laay jëfandikoo léeg moom baatin laay jëfandikoo bu baax a baax a baax damay soppeeku bu baax a baax mel na du woon man. soppeeku mel na soppe soppeeku bu baax a baax ci lépp nag waaw. waaw léegi nag sama comportement mm. ak li na ci man du benn sama comportement ma man ak li ne ci man du benn ndax am na am na yoo xam ne mënu ma ko expliquer am na yoo xam ne mënu ma ko expliquer lu nekk ci yow waaw loo xam ne du lu may leeral nit du lu sama papa xamu ko sama yaay xamu ko kenn xamu ko ku dul man ak yàlla waaw te loolu dana leer yi nag ca kanam incha allahu rabbi am na solo kooku mooy uh, borom karaw gi di maam Cheikh loo mm-hmm. ñoo ko déggandoo ci wàllum seet képp ku bëgg seet bu leer rek uh, di ngeen am numéro ci suuf mm-hmm. maam Cheikh dañuy dugg mm-hmm. ci wàllum papier maanaam ñi nga xam ne dañoo bëgg tukki surtout del si ci waay wàllum papier waaw waaw ñi nga xam ne dañoo bëgg tukki ndeysaan dama leen di yërëm sax léeg lekk ndax dañuy lekk seen xaalis rek ñoom maam ñi leen di wax yoo xam ne teguwut fenn ñu sànni seen xaalis bi rek ci àll bi te liñ bëgg duñ ci gis dara loolu lu doy la waaye daal képp koo xam ne yàlla dimbali na la ba nga jëflante ak man ci kàttanu yàlla ak mbaaxam foo bëgg a dem ci àdduna foo bëgg a dem yaay xool foo choisir. boo jokkoo ak man incha allahu rabbi bu nu juboo ci ay kaddu fa nga bëgg a dem danga fa dem ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. waaw loolu moom lu lu lu ma wér la. waaw jërëjëf dañuy dugg ci beneen toog mën naa ne jamono ji léegi moo di coow li. Uh-huh. ci wàllum koo xam ne dañ koo bëgg a tëj kaso ak ku ñu waaj tëj kaso. Uh-huh. wàllum prison. waaw waaw kaso moom am na loo xam ne nit sax bu doon def loo xam ne lu ñuy tere la wala mu def ko ba pare lu mu ci mën a doon te bëggut mu yam fenn bëggut bëggut du mujj mu bëgg loolu du mujj fenn nga xam ne bëgg loolu du mujj fenn loolu insha allahu rabbi am nañ ci ay ay ay tegtal yoo xam ne képp koo xam ne jëflante nga ci ak ñun loola ak lu mu mën a doon boo rayoon nit sax yan na ma ci yàlla jéggal ci ndax fay wax la rek ndax xam-xam dafa am moo tax. xam-xam daa am te lu ne rek am na lu koy fànq lu ne rek na na ndax am am na yu bari yoo xam ne bu ñëwee rek am na lu ko mën a fànq loo xam ne loolu du am. tegtal yooyu noonu nga wax noonu sa biir wax. Hmm. ay càngat la wala ay. maanaam ay sarax la yooyu du càngat du càngat yooyu yooyu yàq sang sang ay bind yooyu daa daa yàq loolu loolu baatin la loolu loolu baatin la. Hmm. loolu boo gisee Modou Modou yi xam nañ sëñ Modou Bousso Dieng. moom Cheikh Mamadou Fadal xam nañ suñ Cheikh Sayemi moom suñ Soxaybu waaw Modou Modou yi xam nañ leen bu baax a baax. wàllum prison bi nag dañuy yaatal dañu ne prison bi. fan yi dañuy coow. ku ñuy coow mu di benn politicien ñu ko naan. Bougazelli mm-hmm. Bougazelli dégg nga ko. Mm-hmm. instant ñu ngi ci coow li nag. du mm-hmm. question maanaam tëjagul nañu. mais coow li ñu ngi ci yéeg ak a wàcc ak yooyu noonu. kooku nga yaakaar ci li la yàlla may lépp lu bokk ci wàllum gis-gis ak yooyu noonu. waaw yaakaar ci tëj lay mujj wala. xam nga Bougazelli ku ko tëj da war a tëj ku ko tëjut war a parce que dañ dañoo loolu loolu tu kenn tuumaalu ko firnde lañ am maanaam ay faux billets lañ gis ci otoom n'est-ce pas loolu lañ wax ñu gis ko jaxëran kenn nettaliwu leen kenn sosal moom sosaluñ ko kon loola te te te mu nekk loo xam ne luy daaneel am réew la lu luy tardeel am réew la loolu ak moom fi fi mu nekk moom moo xam ne moom moom moo moo ñu jiite ñun citoyens yi nga xam ne moo ñu nekkal fële ca ensemble ba maanaam kooku Euh, maanaam bu doon bu doon benn waay la rek sax bu doon benn waay la buñ ko bu buñ ko tegee daan téeméer moom war nañ ko teg daan junni waaw. ci côté li nga xam ne yàlla dénk na la ko. mu di côté baatin ak loo xam ne yàlla may na la ko surtout seet boo xam ne bu leer naññ la. Mhm. moom mii nii fa ñu mujj dañ koy tëj wala dañ koy mujj bàyyiwaat. dañ koy tëj dañ koy tëj dañ koy tëj nag dootul bari waaye dañ koy tëj. Mhm. force dañ koy tëj. mais du tax mu yàggee noonu wala mën nañ koo tëj ay at wala ay weer. non du yàggee noonu dana dana romb yu weer nag moom mhm. tey rom yor waaye force suñu tëj ko. incha allah rabbi jërëjëf euh, maam Cheikh euh, borom karaw gi foofu leer na nañ dañuy dugg ci beneen ponk mu bokk ci wàllum place. Eh. koo xam ne maanaam dañ koo dàq. ci eh. place eh. waaw ki nga xam dañ koo dàq ci place am mu bëgg delluwaat. Mm-hmm. am na ñoo xam dañu leen dàq mais dañu bëgg a demaat. loolu am nañ ci euh, ay secret yoo xam ne lu yomb la fexeel ba am. su suuf sa fa nga place ba nga doon liggéeyee nga tibb sa suuf sa wax ma turu patron ba nga doon liggéeyal incha allah la ñuy liggéey ci loolu la ñu koy liggéeyee da nga delluwaat far su du ko bu nga delluwaat bu ko naqaree da moom ci kàttanu yàlla képp ku ci jëflante ak ñun suñu borom dana la defal tawfeex bu baax a baax a baax incha allah jërëjëf jërëjëf dañuy jàll ci beneen ponk mu bokk ci wàllum bayre mais bayre nag damay jël wàllum moom bayre njaay wàllum bayre njaay maam Cheikh gars yu bëri bëgg nañ ko képp ku yëngatu moom doo sañoon su xëyee jaay dooy compte di njibbi dara doo ko yóbbaale si lépp mooy jeex ndeysaan wallaay bayre ko bëgg mhm. sëriñu daara bi bëgg na ko jànkatu xasida bi bëgg na ko musique sañ bi bëgg na ko ku ne ko bëgg mhm. bayre nag yombut mooy li la wax léegi bayre yombut bari na ko naan la mën naa la koo defal moom ci jëmi boppam bu ko loolu bu ko mënoon defal ko boppam moom. maanaam lu tax yombut. waaw bayre bayre lu tax yombut. Uh-huh. mooy euh, ay secret yoo xam ne xam nga. Euh, alxuraan daa daa bari te yaatu te bari buntu yiy dox ci bayre bari na waaye dafa am spécial bayre boo xam ne kuñ ko defal adduna bépp dañ leen dégg te danga am xéewal siiw ak bayre nag du benn nit mën naa siw rek ñu xam ko nii nii nii aw turam di dem waaye yorul dara waaw bayre dëgg mooy bayre boo xam ne nit ñi dañuy am ci yow ak cofeel nit ñi dañ lay bëgg buñ la gisee duñ tàggal di jël seen alal yi da la ko jox. Mm-hmm. sa yooyu gis nañ ko fi te maam yow boo xoolee sax tekki woo dara waaye dangay mel nit ñi mel ne amuñu coow sago te xëyaloo yàlla gontaloo ko kon loolu bayral la boo xam ne bayral la rek dañ koy def waaw ci li ci ëpp nag xam-xam bu ñuul la doon xam-xam bu ñuul ndax alxuraan ay mbiram nekkul loo xam ne euh, lu joni joni la maam doxinu kàkkataar lay dox waaw waaye bu xasee jàpp nag du bàyyi waaw par rapport kon ak yeneen yi waaw kon bayre dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam ñi nga xam ne dañuy sacrifice di jëfandikoo xam-xam bu ñuul ñoo la ci mën a defal bu yéeme bu doy waar boo xam ne daal euh, jéggi na dayoo waaw jërëjëf jërëjëf maam Cheikh dañuy jàll ci beneen euh, question mu bokk ci wàllum koo xam ne ni mu di soxna boo xam ne bëgg na borom kër ak borom kër boo xam ne maanaam dafa ku góor koo xam ne bëgg na soxna waaw loolu képp koo xam ne xam nga dafa am ñaar euh, dafay nga gis koo xam ne benn waay boo xam ne day mel ne man bëgg soxna lool mu jafe ko lool nag li tax loolu mooy benn yow am nga rab kon buy dox sa digganteeg ndaw soo bëgg du ngeen sori wala doo mën a bëgg kenn loolu rab moo koy def walla nga amee cat wala ñu liggéey la ba yow loo dugg doo ci am ndam loolu lépp day am am koo xam ne tamit ni muy dale ko góor ki noonu lay dale ko jigéen ki <coughs> loolu nag képp koo xam ne dalaa dal ndax li tax mm-hmm. boo bëggee mbir nga sàkk ko amoo ko war a ngaa xam war ngaa gëstu li tax lii mooy wut am ma ko xool ba xam lan la rab man na ko def cat mën na ko def dañ laa wala ñu dañ laa liggéey ba yow mënoo am dara ndax am mm-hmm. waaw waaye képp koo xam ne da bëgg soxna loolu ci ñetti fan laa la koy defale ci ñetti fan ak kum mën a doon boo la wanoon gannaaw ba sëñ bi laa ay mbokkam wan la gannaaw yaa ngi dégg boo ñëwee wax ma turam ak santam wax ma turu yaayam ak turu papaam yow nga wax ma noonu yooyu sa tur noonu ci kattanu yàlla ak mbaaxam trois jours du ko mat li nga bëgg lépp dana am ci kàttanu yàlla ak mbaaxam waaw jërëjëf waaw jërëjëf foofu leer na nañ dañuy jeexal ci benn cas d'actualité ndax noonu laa ko mën a tuddee mu bokk ci wax dañuy dugg ci sport hmm. du ma nag sama xel day jëm ci làmb hmm. mais duñ ne làmb mooy ki nga xam ne moom la ñu coow fan yi mu di Modou Lo hmm. ak euh, Ama Baldé foofu nag bëgg naa balaa ma fee dugg ci wàllum seet am na loo xam ne yàlla may na la ko d'abord làmb jooj du taxawee ñoom ñaar noo leen gisee kan nga yaakaar ne mooy daanu waaw làmb jooju moom day làmb joo xam ne du làmb ji ndaw làmb ju la du ko gën a garaaw làmb jooju waaw maam làmb jii nii làmb du ko gën a garaaw. gën nga wax de làmb du ko gën a garaaw. lan moo ci daxañu ci biir. li ci daxañu mooy euh, Modou Lo. Uh-huh. li mu yor nii. Uh-huh. da ko da ko bëggoon lool ba mu jaraloon ko lu nekk moo tax jële ko ci moom du yomb te dana ko jaral lu nekk man maa la ko wax. suñ bëree moo ko Ama Baldé. waaw suñ bëree moo ko Ama Baldé. Uh-huh. bu laajee rey sax mën na koo rey. li mu li mu yor nii. Mm. jëli ko ci moom du yomb. parce que boobaa kan nga yaakaar mooy ci côté li nga xam ne yàlla may na la ko. li ma seet ba gis ko li ma seet ba gis ko. mooy Modou Lo moom moo koy daan ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Modou Lo moom moo koy daan. ñaar ñu mën a bëre nag. waaw amaa man na man na waaye kii li li mu yor demee na ko façon demin woo xam ne pour nga jële ko ci ay loxoom ci guddi yu ñu toll nii nii li ma gis ca kaw ca kanam rek waaw du yomb de. Mm-hmm. amaa jàmbaar la lool. waaye euh, euh, roi bi nii. Mhm. jógeegut ci Modou. kon kon yow jàpp nga ne roi des arènes bi dina yàgg ci dana yàgg ci moom lool waaw dana yàgg ci moom lool. maanaam mën naa def ñaata ci moom. mën a def trois ans quatre ans trois cent quatre ans waaw mam moom na nga jàpp ne. Mhm. combat yi ci kanamam yëpp dana ko gañe waaw dana ko daan. Mhm. loolu moom na ci xelam dal. te it euh, euh, na gëm boppam na gën a gëmaat boppam ndax gëm na boppam sax ndax bu gëmutoon boppam lii mu am du ko am mm-hmm. waaye na gën a euh, fonkaat boppam te gën a gëm boppam mm-hmm. lii may wax nii mm-hmm. joxuma dara xam ma ko lijjanti wu ko tamit waaye xam naa ne daal ko sunu borom dimbali la ko sunu borom dimbali la waaw ta ta ta li jële ko ci moom du yomb mais li nga waaw mu di Ama Baldé Modou Lo moom mm. suñ bëree su mm. taxawee Modou ko daan Modou Lo da koy daan ci daan daan daan bu leer naññ waaw daan boo xam ne du am benn sikk sàkka daan bu leer naññ lay doon du doon bëri boo xam ne. mais dóor mu daanu nag euh, maam yi dañ koo soxlaatu ah. neexalut làmb de ba gisoo mu daanu amu ci. waaw dóor maam maam dóor mu daanu amu ci bëri du yàgg. waaw ay dóor nag dana am dóor yu métti dana am waaye deret deret du am waaw deret du génn mais bë bëri lay doon. te dana metti waaye li daal mooy Modou dana ko daan insha allahu rabbi ci kàttanu yàlla ak mbaxam parce que lii mu yor nii caaxaan jëlee ko ci ay loxom waaw waaw waaw jërëjëf waaw xam naa dañ lay bàyyi nga tàggatoog euh, waaw waaw koy maa ngi gërëm ñëpp euh, di nuyu Sénégal yi yëpp rek comme ni ma ko waxoon sànq rek di leen sant di leen gërëm bu baax a baax di jégg lu baax ci kàddu yi di wax ne wax daa xaw a jafe lool te ñun bu ñuy wax sax daanaka duñ bàyyi xel sax nit ñi pas-pas la ñuy waxee ak ngëm rek ñu ci ndax am na ñoo xam ne bu ñuy déglu maanaam say erreur rek la ñuy la ñuy déglu au lieu ndax nit saa yoo di saa yooyu déglu ay kàddoom di ci xool lu ñaaw da nga ko ci gis bu ci dee xool ay erreur da ko ci gis kon nit li am solo mooy buy wax da nga taataan di ko di ko déglu euh, la nga ca soxla la nga ca soxlawul nga bàyyi ko fa kon noo ngi jéglu bu baax a baax a baax ndax fan yee jàll sax mooy sama euh, fan yee jàll maa ngi doon am benn aay bu ma doon tudd alif laam ahasiba nnaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yaftunoon wala xad fatanna lasina min qablihim fala yaxlamanna lasina sadaqoo man ma ne fala yaxlamanna lasina amanoo am am am kuy commentaire daan ne bàyyi leen alxuraan ji ngeen yàq moo ne ko yow da da da ngaa dof imaam sax buy jiite buy naafile day gàkk te daa mokkal alxuraan man gi lim man na tax ñu jiite ko kon yow da dof nangu naa ne damaa juum waaye yàquma ko jóguñu kon wala xat dafa tànn lesi na sa doxoo googu. Mm-hmm. ma jël loon def amaloo maa ngi koy tuub sa doxoo falay alamanal kaasi bi na wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.